asalaamaaleykum euh, suñu mbokku internet yi euh, gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen ci euh, jàmm ak ci salaam macha allah ñu ngi leen ni dalal tey jii ci suñu émission bi nga xamante ne ni émission bu bees tàkk la ñu tuddee ko jigéen ak mbiram wala ñu ne rek Debbo et Bamtare donc nekk ci fi nga xamante ne moo di Safina TV macha allah balaa ñuy àggale rek képp koo xamante ni yaa ngi ko bëgg seetaan na nga abonné fi Safina TV daal di bës cloche bi bu ko defee muy notification bi di nga mën a jot suñu vidéo bépp bu ñëw rek incha allah rabi bi nga ci jot daal di koy seetaan tey nag ñu ñëwoon euh, fi nga xamante ne nii moom moo di jidda caaroy kaw nekk euh, ci wetu euh, Pikine tali bu bees ñu seet si woon si ki nga xamante ne moom moo di Hawaasi nekk actrice de développement boo xamante ne nii ku ñu dégg la ci àdduna tey ñu ñëwoon seet si ko daal di koy dalal fi mu dalal ñu fi nga xamante ne nii moom moo di këram ñu nuyu ko rek balaa ñoo tàmbali suñu émission xawaa ñu ngi lay nuyu Euh, Penda maa ngi leen di fay bu baax euh, di kontaan ci ci télé bi ak ci rajo bi yëpp euh, am na solo ndax léeg ngay gestu doomu aadama yi nekk ci banlieue yi ñu taxaw di liggéey wala di défendre comme seen moroomu jigéen soo ñëwee fii dama ciy kontaan di leen dalal dal leen jàmm waaw macha allah kontaan nañ ci trop ci ni nga ñu dalale ñu ngi la ci jaajëfal tamit bu baax a baax a baax ndaxte dañoo ñëw ci sa kër nga dalal ñu yaatal ñu waaye suñu tàmbali suñu émission rek gis nañu yow actrice de développement nga gis nañu yow yaa ngi yëngatu ci lépp loo xamante ne nii dafay yokk jigéen donc xawaa lool lan moo la ci dugal. Ah, xam nga commune Djiddah Thiaroye Kaw nu mu tëddee yaakaar naa baat yi département Pikine ah, Djiddah Thiaroye Kaw moo ci gën a rëy. soo gisee jigéen ñi ni ñu sonnee ak jigéen ñi nga xam ne suñu xëyee ñu ngi ci marché yi ñii di jaay taabal ñii di jaay lu ne soo ko xoolee rek bu dee tamit ci commune bi nga dëkk moom ngay tiituroo il faut yow tamit nga jóg nga def effort vraiment loolu moo tax ma jóg def effort ma tajak koo xam ne nit ku baax muy Famata Sall ñi waa mm-hmm. yaakaar naa ñëpp tey xam nañ ko ci développement mm-hmm. ah, tey moom ma dalal baax moo ma jàngal moo ma teetee Kamanya ñëmé taxaw tay di wax femme de développement la wala damay jappalé population Sénégal waaw deug la xamna naa ni euh, ci koku nga wax sax dina ñew ci machallah muy Fatoumata Sall ñii wa yow sa diggante Fatoumata Sall kan ngeen xamanté ak euh, li mu lay appuyer euh, yow fan nga ci tollu ci ñaata groupement. ah vraiment Famata bu ñu xamante ak légui mon na ñaar fukki ak ñenté yakarna bobu ma ngay nek xalé ñi tamit lu bari ma jang ci mom lu bari tamit du question moyen rek moyen def social ah, nit ki bala nga def social il faut nga am xol bo xamne xol bi ngay muna nek ak doomu aadama yi ku ne nga mun ko comprendre ku ne nga mun ko loolu jang la ndax lele dañuy wax ah, jang moy cadre ah, ku jang rek moy cadre dedet cadre photo la cadre ci xel la lele nit mun nga baña jang waye machallah nga xam loo xam ne ku jàng mënu koo génnee moo tax ma mën a déggoo population bi moo tax ma taxaw takk sama sér di jàppale population de Thiaroye Kaw lépp lu ma ci gis tamit loo xam ne dañuy néewal doole doomu aadama ma taxaw di ko défendre macha allah rafetlu nañu loolu bu baax a baax ndaxte dafa ne dafay défendre euh, population wu Djiddah Thiaroye Kaw xawaas yi ñu gis ko euh, ñu ne actrice de développement la mais tamit ba tey xawaas yi dafay yëngu ci li nga xamante ni moom moo di politique euh, ndaxte gis nañu sa taxawaay ci fii ci Djiddah ba ñu ñeme ñëw seet la fii nga xamante ni moom moo sa sa taxawaay ci politique bi ak waa Djiddah Thiaroye Kaw loolu tamit sant yàlla bu baax sama taxawaay ci politique yaakaar naa kenn du wax kuy xawaas yi ci département Pikine wala Djiddah Thiaroye Kaw ñun bi Macky dooree wala boobu sax Macky dooragul la ñu door bi Macky di xeex assemblée la ñu door di jàppale Macky Sall di ànd ak moom euh, xëy na nit ki euh, lépp looy am tamit bul xeeb li nga ci am ndax am na ñoo xam ne sonn nañ ci amuñ ci moo tax dangay sant yàlla ba yàlla def ma taxaw tey di jàppale jigéen ñi ba yàlla tey jii fépp foo wax suma tur rek euh, dañ koy xam walla ñi ma ciy wax loo xam ne lu loo xam ne yottu moon sax loolu dañ ma ko wax vraiment loolu sant yàlla la euh, tamit euh, sant samay ñaari waajur tamit sant tamit population ji da caaran kaw ndax su ma wootee rek dañuy wuy si loolu tamit ci vraiment du man ñoom la ndax nit ki léeg mun nga ko defal sax mu fàtte waaye ñoom fàttewul man lépp li ma am rek dama koy bokk ak population Djiddah Thiaroye Kaw mm-hmm. macha allah euh, xawaa lépp loo am danga koy bokk ak euh, population Djiddah Thiaroye Kaw waa Djiddah ñu ne la fi mu toll nii ci ñaata ñaata groupement nga war a toll nii pour euh, jàppale leen parce que gis nañ ni dangay ngay financé groupement yi groupement yi léegi ab ëpp na yaakaar naa fanweer ak juróom-ñett ci ñoo xam ne mm-hmm. ci ginnaaw yàlla ci nante bi ci man la ñu yaakaar pour may leen di jàppale ci financement moo tax du ma yendal du ma mm-hmm. ndax nag ku sañoon sa commune mooy raw sa commune mooy nekk pay moo tax nag ma takkaat sama sér jógaat taxaw di jàppale jigéen ñi képp kuy jàppale jigéen ñi tamit soo ñëwee dama lay jox loxo ndax nag loolu dong moo ñu ñor ndax loolu moom moo ñu ñor loolu la xawaa wax nee na ndaxte jàppale jigéen ñi moom moo ko ñor eh, donc xawaa yow eh, jàppale boobu Fatmata Sall ñi wa kese nga am sa ginnaaw wala am nga ñeneen ñoo xamante ne ni eh, ñu lay jàppale la ngir nga jàppale yow askan bi nga nekkal waaw xam nga man Famata Sall moom wax dëgg yàlla bu dee développement moom moo ma ci jàppale ba àdduna bi yépp xam ma ndax moom ma njëkk a jox fi ay ay millions jox ma ay machine mu jox ko jigéenu ji da caaran kaw ah, yàlla weddi tamit Samba Ali Ndongo nga xam ne sama xarit la sama góor la suma lépp la moom tamit tey jii jàppale na ma tuuti ci loo xam ne ah, ci li ñu bokkoon ah, mu mu ñu partagé ko mu dooleel ma ci ba yàlla weddi ko yàlla defee nii waaw euh, kooku di euh, Samba Ali Ndongo nga xamante ni moom tamit ku nekk déggoon na ko fii nga xamante ni moom moo di jidda caare kaw ñu koy ñaanal rek fa la mu tëdd gën ko fii mu jógee macha allah sa diggante ak Samba Ali Ndongo ndax gisoon nañ ne danga nga daan ànd ak moom lu bëri yéen euh, ni ngeen composé woon ni ngeen doon àndee noonu ànd bu sincère boobu noonu lan moo ko waraloon. waa xam nga sàmba dafa dem ba xam sama jikko man du ma tiris te lu nekkul ci man duma ko wax mu xam ma ci loolu tamit mu supporté loolu Samba bëggul ma mer. Ah, su ma jaxasoo sax Samba day taal otam ñëw soo gisee sama doom am doom ma tuddee ko sàmba Ali Ndongo ah, Samba dafa nekkoon kenn ci man ah, Samba nekkoon benn jëmm ci man moo tax Samba Ndongo man du ma ko fàtte dama koy ñaanal rek saa su ne heure bu ma yeewoo ma koy ñaanal ak li mu mbébatoon ci Djilor Caaroy Kaw man tamit ma ñaan yàlla ma mottali ci loo xam ne eh, lu mu doon yéenew Djilor Caaroy Kaw ci loolu rek laay dox ndax Samba Ali Ndongo nag jàmbaar la woon gaynde la woon yàlla ko yàlla yërëm te yéexeeñu ci barke salaatul fatiha amin yàlla na ko yàlla yërëm ah, te ñu ba tey xawaa ndaxte ñu ngi waxtaan depuis sànq ba tey ci li nga xamante ne moom moo di développement ñu waxtaan tamit aussi ci li nga xamante ne ni moom moo di politique bi nga xamante ngay ci ngay yëngu donc xawaas yi dafa am poste ci politique bi wala xawaas yi dafa ci nekk rek koo xamante ni ni dañ ko cee dégg rek daal waaw sant yàlla alhamdulilah euh, yaakaar naa politique bi euh, wax naa la dekkal ngor lañ ñëwoon ci politique bi am nañu mbooloo xam nga bu doon ko am mbooloo rek am post boo xam ne ñëpp dañ la dañ lay wax am na poste bi waaye tamit loo ci am bul ko xeeb sante ko yàlla ndax danga doon ànd ak say morom ñu sonn ci comme ni ñu ci sonnee amuñu loolu yow nga am ko yow tamit danga ci sante yàlla ndax première dame nag yóbbu na ma ziyaara ji Seydina Mouhamed sang-sang yi loolu rek maa ciy sant yàlla bu baax yaakaar naa tey ji euh, vraiment am naa ci sarsi mission boo xam ne ci ministre la femme loolu tamit dama koy sante yàlla ma sante ko ñu may àndal tamit ñoo xam ne dañoo xeex taxaw ne xawaas yi dafa war a am cëram euh, yaakaar naa euh, ma sant ñëpp nag ma sant ñëpp ñoo xam ne dañ maa doole ci politique bi ñi may ma fit ku mel ne As jàlloo nga xam ne gaynde boobu nga xam ne jidd moo ko ñor nit dangay bàyyi dañuy bàyyi ba nit jógee fii ñu doog a xam kooku kan la comme sàmba Ali Ndongo nit ku bañoon nit koo xam ne dafa bëggoon population am nit koo xam ne dafa bëggoon ñu jëm ci kanam euh, soo ma xoolee Samba Ali Ndongo ni mu doon def rek dama koy xool ci As Diallo tey ji ni mu taxawee euh, muy bëgg a jidda caan kaw jëm kanam macha allah euh, As Diallo kooku moom As Diallo moom lan la lan la nekk ci jidda As Diallo responsable APR la dafa nekk fii di jàppale mag Macky depuis parti bi bu muy sos ba léegi mu ngi ci di jàppale parti bi te mu nekk nit ku sincère mu nekk nit ku déggu mu nekk nit koo xam ne du waxantu macha allah xawaa balaa ñoo dem ci plat bi dinañ la laaj tuuti parce que gis nañ ñu ne politique bi fu mu toll nii euh, ñu ngi jëm ci ay séance muy euh, voté yi nga xamante ne moom moo nekk voté communal donc nga xamante ne commune bu nekk am na koo xamante ne nii tabb nañ ko fa teg ko fa est-ce que problème yooyu nekk ci commune yi ci des yëpp yéen seen commune am na ko ak noo leen ko gisee. waaw day am waaye xam nga rek loo gis rek ci solution lay mujj loo gis ci waxtaan lay mujj kon président Macky Sall Modou Gueye ànd rek jàppale ko euh, li ñuy ñaan euh, li ñuy mbébét yàlla may ñu ko ndax kon ko président tamit mooy suñu kilifa moom moo taxoon ñi politique moo taxoon ñu wàcce ci terrain bi di rayante su ñëwee indil ñu koo xam ne suñu indilee kum ñu mënti indi rek kooku dañu ko jàppale ñu ànd ak moom ba li ñu ut ñu am ko macha allah ñu ànd ak moom ba lu ñuy wut ñu am ko kon donc xawaa loolu la wax ci li nga ni moom di politique bi donc xawaa xam naa ne euh, olof dafa wax li nga doon soo ko dafa fekk nga gën cee ñaaw donte que ay xaal pulaar la ñu ñu nekk ay njudd jéeri bu ñu defee émission il faut ñu laal ci tamit tuti li nga xamante ni loolu la ñu doon waaw ñu bëgg xam rek ndax dégg na wala xawaa moom tubaar dafa mel rek penda <laughs> eh penda alla jarama jarama Ah, vraiment min kam wolof kam mi nanta ɗum no fewi ni ha so ɗon jibinami ɗo mawnmi wolof kam mi ɓe mbiyata ko mbaɗɗo raciste kono wona wadde raciste wonko neɗɗo waɗata ko yidde hoore muɗum ɓe mbi noon yidde hoore mum wona añande bandum il faut ko neɗɗo mbawɗa wonde aduna foof ah, gona jiiɗa ko gonɗa ko kadi ponka hoorema ko ɗum yettintuma to jiiɗa yettade aha ko gonga tigui donc hawasi euh, a weltanama e, e ɗum ɗon minen hayso tawi komin juddu jeeri en pular men leerani kono kam ma haɗani kadi emin mbaɗa émission en pular euh, donc euh, hawasi to fuddirnomi to tan ko ɗon to ɗon kadi garani ha joni aɗa woni actrice de développement aɗa walla kadi wonɓe ɗo yene jidda thiaray kaw oɗon ballal holko saabi ɗum walla kadi holto holon fandare jiiɗa hen eyyi fandare jiimi en nde ko neɗɗo sa wuure aduna tan ɓe mbi sa wuure aduna a waɗani haydara sa ma ya manetake ɗum waɗi ned a ñametaka a yaratake neɗɗo ko golle tan e balle sa yi hannde darimi darjimi wuderam mbimi mbiɗo waɗa hande social walla hande mbiɗo waɗa development. wona jogade min moyam ala ko ɓerdam e yenami e jidda caron kaw hannde to jinmi jidda caron kaw yettoɗo to guure keddiɗo ɗe jettiɗo hannde jinmi ko jidda caron kaw nane toon koɗum waɗi minnene dadimi wudaram calimi yaware ɗum wona e jidda caron kaw tan kannumi ɗum ha e fuuta foof sabu hannde mbiɗa sikki population fuuta hannde wol anduɓemi guure kewɗe hannde ne gandi kam ɗum ɗon foof hannde ko sa ɓe gandi kam ko famata sal ñiwa ɗum noon neɗɗo kadi mo yettani allah yetta sababu ɗum noon mi yetti allah mi yetti famata sal ñiwa kono mi yetti samba ali noon gorkoma gamaji e leraɓe on kanko bonam gorko we noon wonti samba ndongo wallahi ko on woni samba ndongo mboɗa andi kam a watta émission ha gasa taw a haalani haala samba ndongo wonno kadi emin ji kadi darde ma min ji kadi no jadiranno ɗon eh, kala e saaha eh, hawa eh, mbiɗa ko fouta presque ko heewi hen gori hewɗi eɓe ganduma sababu nde fatimata sall niwa est ce que a yahatno toon aɗa yaade e makko tan ni yen walla annene sa yehino toon a noddanno toon fuutankoɓe ɓe jagganamo ou bien kanko fatimata sall niwa eyyi sa yi hannde mi ƴewanoma pelle kewɗe e fouta mo jogui ma won temedere fedde hannde famata sana jogui ɗum e fouta mi wiyanima département matam walla podor ala hannde guure kewɗe famata fawi ɗon uh, machine aji fawi ɗon uh, financement uji fawi ɗon catallaji e cajo juude pour jamaji ɗum ɗon noon mboɗo sikki famata hannde ko famata sénégal mboɗo sikki famata sal yeehi ha mouritani wat toon financé rewɓe sénégal naaɓe wonɓe toon ɗum noon mboɗo sikki hannde min koyngal m ala to yaɗani e famata pour on waɗa financé Euh, pour wallude sénégal naaɓe woni jolfo o noon woni halpular o ko ɗum ɗon tagi noon hannde cuusmi reedu darimi machallah ko ɗum tahi o suusi reedu o dari jaggani o yiya population woni fuutankooɓe woni dakar naaɓe do kam e jidi caare ko heewɓe ne nganndi ɗo en eh, holgonɗo hawasi eh, hawasi ne woni actrice de développement kono haɗani kadi omo waɗa politique kadi no feewi eh, vraiment hawasi aan ɓe mbaɗanoɗa financé ɓe est ce que gartam ene ene arti hen donc a waɗat ɓe financé ɓe gartaranma haalis ou bien a arat gara e neɗɗo ma ɓe hokka ɓe financement o holno yarata non min financema euh, financement mbaɗami o ko gartam kono noon euh, hande mboɗo sikki hewɓe tottiɓe mi financement wonano ñamli ala ko hokkirde kono hokkirde noon min paat ɗum ko emin jogui bureau bureau ji mbatte euh, kaalis o jibinat kaalis o wodat ko nafti pour janggo e jaam mum fo naftoro hen hunde nde wawa lawde ha mon fo yito hen hoore muɗum ko ɗum woni hande darde amin ɗo e jidda carankaw ko ɗum woni darde mone ɗo e jidda caara kaw an ko boyani mi nani ɗo en eɓe oɗon uh, kaaɓe ko nonde uh, onon uh, rewɓe jidda caara kaw ko saabino oɗon kaare oɗon jiɗi holko jiɗɗo eɓe jogui caɗele ministre la femme ganduɗa ko ministre amin kadi ko min ko toon gonmi koye ministére e gonmi ko ndam komi sarse mission ministre la femme Ah, ma koy nuyu tamit sama ministre boobu nga am ne mu ngi liggéey waa Ndeye Sali Diop mu ngi liggéey liggéey bu am solo nga xam ne moom ci ci kii am laa nekk ci direction am laa nekk kon ba ma koy ñaanal rek ah, yal na ko yàlla defal jàmm ah, te mu gën góor góorlu tamit gën a jàppale jigéen yi jigéenu Djiddah Thiaroye Ngom mu bàyyi leen xel ndax ay gaynde ñu ngi fi ñu bëgg a président Macky Sall ñu ngi fi ñoo xam ne eh, lenn rek ñuulu leen lenn saxulu leen jidda caaran ko moo leen saxal population bi ñoo leen taxal Macky Sall moo ñor waaw ci arek ka mo len ñar xamna ko tahi taji pular wotan woni ndey sali job kam <laughs> ko ko jolfo nanani pular donc kadi il faut que sama hala e makko hala jolfo mbele o mo o mo nana dum inshallah ma wonan dum kono ara ene am e e, e e financement ji di de odon jogi bureau ji ndax bureau ji di kambe bi e, mbada be financer be jax be jeeya be gartira ou bien so be wadi be financer holno be ta dal par lewru wala be ya be garta par nyalawma e eh, be par lewru wal artiroɓe par semaine mon fof e yiyande muɗum no wawi liggoraade kono mbaɗo no mbaɗa liggoraade fof yo haaliso arte mon tan kadi nafa janngo walla jibina janngo sam ko ɗum tagi yimɓeɓe ina mbiya yo rewɓe mballe walla hande yo hande gure mballe ko mbiyete ko enen hannde enen ɓamto sam mbuɗi sikki hannde ɓe mbi ko rewɓe walla senes kañumen jogui jogoto wuuro ɗum noon ko ɗum ɗon tan uh, mbawmi haalde kadi rewɓe ɓe kadi gooma koye mumen il faut neɗɗo mbaɗa wonde fof gooma hoore ma ganda an ka holi on ganda an ka neɗɗo te neɗɗo o a fotaɗe waɗede note poɗɗa ko darade daranoɗa leñol ma poɗɗa ko darade caloɗa sam sa salaka yaware awana wawa fajja gacce ɗum noon neɗɗo il faut caloɗa yaware Ya, ko dum ɗon donc wi neɗɗo il faut que da yaware e hawa min mama non no fewi vraiment e pular mo kalden do tawde min kam eh, ko min juddi jeri pular am ko kono haɗani kam a walliti kam ha joni eɗen jekkata eh, yewtere men eh, e jolfo sabu kadi emission ko non yarata bi kalmu min joddi so tawi ka ha pular comme men ni min baawi haldude haaldude seeda ma min baddu dum hen so tawi emission ko ko ko émission emin kaala jolfo donc donc xawaa euh, ñu continuer ba léegi rek ci suñu émission ndaxte euh, ki nga xamante ne ni moom la fi seen président indi comme nee nañu président moom moo samp nit daa na ngeen topp ci ginnaawam euh, kooku noonu yéen est-ce gis ngeen ci moom ni que su fekkente ne ànd ngeen ak moom développement bu ngeen di dox ndax dina gën a soqaliku ci jidda wala yéen li ngeen di dox est-ce boobu noonu du mel ni ki ngeen ne da ngeen ko fee bëgg a jël si waaw ñun moom ñoo ngi waxtaan ak moom ndax ah, suñ ko woowee ci ñun ci li ñu bëgg bugg ak population bi lan lañ sentir ak ci lan lañu yaakaar ci moom ak mbébét yi ñuy xaar ci moom ak Macky Sall lu mu ko sampee fii suñ ko ci woowee mu fekk ñun ci liñ ko woowee ndax ñun lan lañu soxla lan la ñu mbëbét ci Djiddah Thiaroye Kaw kuy ñëw di jàppale population Djiddah Thiaroye Kaw kuy ñëw di défendre Djiddah Thiaroye Kaw kuy ñëw lépp loo am ngay bokk ak Djiddah Thiaroye Kaw ñun kooku moom soo ko defee képp ku Macky Sall tegoon fii tamit dañuy ànd ak yow ci loolu ndax loolu dong moo ñu ñor ñun population bi rek moo ñu ñor ndax nag fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màggee fii la def suñu lépp waaw kon moom kuy ñëw ci Djiddah Thiaroye Kaw nanga nga jàppale population Djiddah Thiaroye soo jàppale population Djiddah Thiaroye Djiddah Thiaroye dañ lay jàppale moom nag lu tax ñu koy jàppale président Macky Sall moo ko teg fi te ñun président Macky Sall ku mu teg rek dañuy ànd ak ndax mooy suñu dëgg la nee na président Macky Sall ku fi teg moom moom la ñuy àndal ndax moom mooy kilifaam euh, donc xawa yéen am na koo xamante ne moom moo fi nekk muy seen maire euh, ñu di ko dégg à chaque fois ci li nga xamante ni lu bari moom lay def biir Jidda yaakaar naa ne ku liggéey Jidda Caaroy kaw la wala non kooku liggéeyul ci Jidda Caaroy ko muy Cheikh jee Cheikh Dieng moom dëgg yàlla dafa moom moo gën a rey ji da caaroon kaw tey ji soo xoolee semence bi du tam mu a bari Cheikh Dieng ci la bokk ndax Cheikh Dieng soo àndul ak moom du la may dara nit ñi nag mun nañu yeewoo war nañu yeewu ndax Cheikh Dieng tey ji féewale nit ñi la nekkoon fii ah, kër gi ma ànd ak moom kër gi du ma ànd ak moom su ku ma àndul du ma ko jox yaakaar naa ku nekk ku bëgg a nekk njiit ku bëgg a nekk kilifa daa yaakaar na dangay la ñëpp doo xool ku la bañ ak ak ku bañul commune kooku dangaa waroon def nga njaboote ñëpp waaye Cheikh Dieng moom nañu abal ndax lu tax Cheikh Dieng nañu abal ndax soxlootuñ ko fii ndax lu yàq suñu commune lu ñu tardaloo Cheikh Dieng moo ñu ko tardel waaw nee nañ lu leen tardé rek Cheikh Dieng moo leen ko tardé kooku nekk seen maire commune ba tey tamit dañuy continuer suñu waxtaan xawaa est-ce que maire bi rôle bi nga xamante ne ndax yee wax nga léegi ne jàppalewul dara ci waa Jidda waaye xanaa lu mu bon bon bon yéen ñii di ak ay actrice de développement am na lu mu leen di mm, woo parfois di leen ko financer pour ngeen jàppale jeunesse bi même bu fekkentee ne wala jigéen ñi fi nekk même bu fekkentee ne moom defarul fi nga xam ne moom mooy localité bi man de mosuñu maa woow te samay morom tamit mosuñu leen woow moom moom ko andul ak moom kenn du ko woow nga taxaw di liggéeyal sa commune nga taxaw nga liggéeyal ah, tay ji ah, département Pikine wala nga taxaw ba xamne jambar nga da nga taxaw di di di bañ lo xamne ne muy dugg sa commune mom jappaluñ ci ba dëgg yàlla képp ku andul ak mom dula la muy Cheikh Dieng Cheikh Dieng nak tay ji lu ray parti lu ray lu ray commune bi Cheikh Dieng la waaw donc xawaa <laughs> ba tey ñu ngi kontaan ci loolu ndax moom moom nee na seen commune seen commune maire bi fi nekk daal euh, dañu da leen a xaw a sonal daal ba tax ñu bëgg ko fee jëlee ba tey rek dañu ñëwee ci rôle actrice de développement bi ndaxte xawaa yéen da ngeen di joxe ay financement kese nit ñi di ko delloosi wala parfois da ngeen di ubbi lu mel ni da ngeen di jël ay ay nit ci centre lu mel ni centre ngeen jàngal leen ay euh, comme ni ñuy waxee ni ñuy defaree ay euh, mboq comme local bi nga xamante ne ni jigéen ñi ñu ngi koy def ndax yéen ngeen am ay jigéen yoo xamante ne da ngeen leen di financé ñu def loolu wala. man moom motul sax yaakaar naa un mois euh, ay ñi formé ay jigéen ñoo ñëwoon fii euh, ma am groupement yi ma leen boole ñu dem defal leen formation ay affaire araw mbokk yooyu ay bisaab yu bëri ñun moom am na yeneen yi ñu defoon yàgg na ëpp na ñeenti at. waaye ñoom tamit keroog lañ ñëw fii après ma boole nag yeneen jigéen ndax groupement dañoo bëri Djiddah Thiaroye ndax Djiddah Thiaroye Kaw population am moo ëpp population département Pikine yëpp commune Djiddah Thiaroye Kaw moo ci gën ëpp loolu moo tax soo nekkee fii amoo mooy da ngay sonn moo tax ñun ñu sonn moo tax xeex ñu yomb ndax ñun jigéen yi ñoo la nekkal fii waaye soo gisee nit taxaw duñu xeex ah, amuñu moyen moo tax te bëgg nañ population bi jëm kanam mm-hmm. waaye nag amuñu moyen léeg-léeg rek la ñuy am nit ku baax ñëw jàppale ñu ci li ñuy def dëgg la kon donc ñu ñëpp déggandoo nañ ko ñoom amuñu moyen moom moo tax euh, développement bi nga xamante ne nii bëgg nañ ci di yëngu bu baax a baax a baax mënut sotti donc xam naa ni loolu moom nekk na message boo xamante ne incha allah ñëpp dinañ ko dégg euh, bu ko defee ñu ñëw ñu jàpp si mais xawaa man li ma mënta nag moom moo di que ngeen nekk parti au pouvoir nekk euh, des actrices de développement te ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi ñu ñëw appuye leen ba mu mat sëkk li ngeen bëgg yéen lu tax ɓe mbi harpulaar wi sayi yi eh, jiiba ko may sayi yi won ko may ko ardibe min ɓe ñu jiital ñooñu tayle ñu jiital ñun ñooñu tayle ñooñu tayle mu ne duñu wax xam nga nit ki da nga koy tayle mu ne doo ko fii xam nga bey soo koy rend dina dina lo mu ta rend muy mala muy lo mu munta nekk loo rend dina yuuku mu ne ñun duñu ko fii mu séparé commune bi mu mu nek mag war a defar nekk kilifa war a defar muy séparé di jël ñii di bàyyi ñi kumba am ndey kumba amul ndey te ñi liggéey ci parti bi ak ñii liggéey ci tey jii ci commune Djiddah Thiaroye Kaw yaakaar Sénégal yëpp ñëpp du nañ seen baaraan ndax euh, yaakaar naa man su ma waxul sax ku ma gis xàmme na ma ci wotu Macky sàll la liggéeyal Macky Sall rek moo ko moo ma ñor euh, liggéeyal askan bi moo ma ñor waaye nag soo waxee dangay avancé am ku taxaw mu ne doo nekkee fi te adunam vie am yëpp mu dog ko ah, nga xam ne léegi mu am téeméeri xam nga loolu tey ji kooku lu ñu yàqal tey ji tamit mu ngi ci ndax ñun ñu nekkee ay ndaw ñu bugg a dem wala ñu bugg a jàppale population am ku taxaw yàlla cëral ko ñu wax ko yow yaa jiite waaye ahaan ku nanguwul li nga wax danga koy rendi waaye nag ñun ay doomu pël lañu. ah kon daal yéen ki leen jiite fii nii ci euh, commune bi dafa wax daal képp ko àndut ak moom du la du la du la du la jox dara wala yow du eggale seen mébét ci ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi euh, kooku noonu yow dégg naa la léegi ngay wax euh, mag. est-ce que tamit euh, loolu jotul xalé ay xalé yu fi nek xalé yu compétent yo xamanteni ni wax deug yalla jang nañu meun nañ gérer yu bari ñu diko bayé ay ak mag yi est-ce que jotul tamit loolu dé mais yow so bañé ma bañ keneen bañ amna na ñu ko bañul ndax xam nga commune wala waxuma la commune sa dekk lan moko jëmele kanam xalé yi dañuy taxaw bañ senes bi taxaw bañ waye konko ñi naron bañ ñi wala ñi waron bañ ño taxaw defaande koku mais est-ce que loolu solution dina trouver fofu waaw kon donc ñëpp dégg nañu laaj bee ngi noonu ndax est-ce que solution dina génnee foofu moo di que ñi nga xam ne ñoo waroon bañ ñoom ñoo nangu si ni ma ko déggee man comme ñi nga xam ne ñoo waroon a taxaw xeex li nga xamante ne moo fi am ñoom ñoo ne déedéet duñ ko xeex ñoom nangu e, ñuy topp ngir mu jàppale leen xanaa kooku moom tamit kon daf li mu leen war a jox ñooñu la koy jox xanaa ah man de cinquante mil la ma mus a jox fi yaakaar naa man li ma am e, soo ma joxee cinquante mille xanaa ku ne naa am ñaar dërëm cinquante mille dañ maa woon jox ma cinquante mille ah Modou Gueye nag ñëw naa parti moo ko teg fi muy suñu kilifa dinañu engagé ànd ak moom dinañu engagé jàppale ko ndax nag suñu président lu mu wax loolu la ñuy wax waaye duñ ko jàppale ngir benn kilifa fii ci commune bi déedéet dañ koy jàppale pour suñu président lu ñuy wax may nañ ko cër ndax nag ku dul cërale duñ la cërale moo tax président Macky Sall fu ñu tool dañ koy jóg cëra moo ak première dame moo tax ma jox leen cër macha allah wax nga ko léegi si say wax si sa premier kàddu ndax nee nga première daal moo la jox billet Màkka nga doon ajaratu macha allah bi mu lay jox billet Màkka boobu ba mu la fu mu la fekkoon ak la ko joxee nan la ci yow. ba mu ma koy jox maa ngi ci teere bi di xeex comme ni commencé nii rek ndax yaakaar naa ah, bu may woo maa ngi ci département Pikine ci 16 ba la ma woo téléphone mu ne ma suba eh, dina ñëw si kër dangay dem Màkka mm-hmm. kon moom ci teere la ma fekk may xeexal askanu ji da caaroñ kaw. Mm-hmm. may xeexal population de Thiaroye Kaw ah, ñoom nag ñoo war a yeewu ñu xam ne ñun ay ndaw lañu waaye dañoo gëm président Macky Sall moo tax ñuy rayante dañoo gëm eh, vision président Macky Sall moo tax ñuy rayante waaye ñun suñu buggee wax fii la ñuy jaar am ko wax nee na doo leen jógee fii wala doo leen yëkkatee ko fii loolu moom xëy na soo ko gisee dina ko fajal boppam ndax xam na ne tey jii soo gisee ñu teg fi allié teguñu fi APR loolu yëpp liggéeyam moom mu ngi ci moom responsable de femme bi nekk fi euh, rôle am mu ngi ci lu tax teguñu fi apéris li moom rôle am mu ngi ci ndax so nee ñu moom soo baakee rek lépp dina baax ah, njiit soo melee nee ne rek euh, lu ci des mun na tasaaroo te lu ñu indil tasaaroo rek lu ñu indil tey jik jaaka rek ah, kumba am ndey kumba amul ndey ndax loolu moo nekk ci commune juda tiaran Kaw yaakaar naa man ku ñëw fi nga ma fekk yaakaar naa man ñett jigéen ñun ñoo nekkoon ci APR fii ak ñeent ñetti góor kon moom su nit ñëwee nag mu ne def ñuy rendi par kenn kenn man de duma ma nangu ku ma rendi du ma nangu ku ma rendi te duma ko digal nit tamit ku bëgg boppam ku bëgg a engagé boppam tamit gëm boppam dina taxaw xam ne ñun yàlla mooy maye man lépp li ma am cër bu ma am rek jaarul ci ñoom cër bu ma mënta am muy charge mission bi muy màkk bi première dame yaakaar naa toog nañu ñeent yoon jaarul ci kenn ci ñoom benn bi Samba Ali Ndongo yàlla ko yàlla yërëm sama góor sama nit kooku nit ku baax kooku nit ku buggoon ma avancé ku xamoon sama engagement bëggoon ma jàppale ba yàlla def ni mu def muy Samba Ali Ndongo Euh, kon donc kontaan nañ bu baax a baax a baax ci moom ndaxte mu ngi doon wax digganteem moom ak première daam ba tey tamit mu wax digganteem ak ki nga xamante ne nii moom moo di honorable Samba Ndongo te xam ne ku nekk dégg na ko ci Sénégal ku nekk déggoon na taxawaay bi nga xamante ne amoon na ko tamit ci jàppale néew di doole macha allah euh, noonu mu doon dimbalee néew di doole tamit ñu ngi ñaan rek yàlla na ko suñu borom fulal ay tuyaab yu bëree bëree bëri mu yo yeggale ko ci àjjana fi daw si ba tey xawaa dañuy yeggale suñu émission donte que li ci des sax warut lañuy yeggale ci actrice de développement bi nga nek tamit ba légui ndax ci lay loolu lañuy wax da nga nek badjanu gox ci koñ bi wala yow ce euh, développement rek motax wa koñ bi min la ni waaw badjan gox euh, bi tay ci bi ñew fi chef de quartier bi tay ma ngi tuuxu ci rek mu ne ma légui yow lay def badjan gox ñu duggal samay këyit way gennugul ndax nak koñ so ci ñewé nga dekk ci moto ci sax 6 mois ñu ñew boole la ci koñ bi ñox la yaay bàjjanu gox kon bom lolou da nga wara muna a taxawat nga defar lol bobu ñu yaakar ci yow yaakar baña tas ndax yaakar na man sama keur papa mu ngi ni fi la juddo fi la yaro fi la magge ba yalla def ma jindi fi téré ma ñëw dekk fi kon mom suma ñewé dekk fi tamit ñoñu tamit bëgg ma chef de quartier bi imam bi ñepp euh, dañ ma bëgg té yalla rek tax kon mom da ngay gën gor góorgóorlu nga xamné yow commune rek ñola ñola ñor sa population rek ñoo la ñor képp ku la mën a xeex képp ku la mën a euh, bañ a euh, calculer yow yow defar rek te yàlla rek a tax ñun nag dañoo bëgg képp ku bëgg rek développement euh, dund nañu gestu jàppale ñu ci développement bi ñuy def jàppale jigéenu Djiddah Thiaroye Kaw man ci engagement boobu laa am te duma ci dellu ginnaaw ndeysaan eh, nee na ci engagement boobu la nekk du ci dellu ginnaaw eh, donc nekk eh, actrice de développement bu mak fii nga xamante ne moo di ci commune bi ji da caaroy kaw ba léegi rek xawaa comme nee nga yow doo bàjjanu gox bàjjanu gox nga presque parce que comme say këyit dugg na dafa génnagul rôle bàjjanu gox ci biir koñ bi yaa ngi koy doxal est-ce que ah maa maa ngi def li ma mun soo gisee sama kër man yaakaar naa am njabootuma waaye soo duggee sama kër heure añ dangay yaakaar ne sax <laughs> ñi ñëpp fa la ñuy fanaan ndax kër gi rëyul waaye affaire bi du kër du rëy xol mooy rëy man ñëpp laa njaboote te ñëpp laa soutenir tamit xeebuma benn doomu aadama yaakaar naa bi nga ñëwee fekkoo ma fii ci naaj bi tàng jër laa génn pour dox rek ci social dox ci loo xam ne day jëmale Sénégal kanam dox ci loo xam ne mag sàll loolu la santaane muy nañu ànd bokk nde ak baay population bi képp koo mën a dimbali nga dimbali ko teelal ka tax loolu moo jox taxoon ma jóg ci naaj bi di dem macha allah kon donc yaa ngi doxal li nga xamante ni moo di rôle bi ndaxte bàjjen gox moom yaakaar naa ne loolu rek mooy rôle am génn tamit xool njaboot yi nga xamante ne ñu ngi ci biti euh, ci naka la ñu toogee wala ci naka la ñu nekkee donc tamit loolu dañ ciy kontaan bu baax a baax ndax dëgg la bi ñu ñëwee léegi sax fekk ñu la fi euh, da nga génnoon te bi nga ñëwee tamit loolu nga ma wax daanaka danga nekkoon ci biiti am ñoo xooli ji woon donc euh, ñi nga xooli ji woon it da ngaa waxtaan ak ñoom ndaxte tamit ñu ngi jëm ci euh, euh, élection yi wala da ngaa demoon nga seeti ji leen rek comme ni ngay def chaque jour wala mooy role bi nga xam ne ci nga nekk. xam nga nee ñu reer bëccëg lañ koy togg waaye guddi lañ koy reer man nag yaakaar naa sama engagement ci ci population bi nekkul rek élection moo tax man soo élection ñëwee day yomb ci man man du ma wari nit ñi nit ñi ñoo may wari di ñëw ndax nag nit dangay lijjanti nit ki. wala nga bañ a xeeb nit ki wala nga toppatoo nit ki balaa dara di xew soo dara ñëwee mu yomb la moo tax man tey lépp yomb yomb ma. lu bëri sax duma dem fii lañ may fekk léeg-léeg mouvement yi fii lañ may fekk euh, groupement yi fii lañ may fekk ñëpp fii lañ may fekk sama kër ndax nag damaa sekk ak ñoom teraanga yoo xam ne ku ne dafa am fu ma jaar ak yow du keesoo sama moy de. suma fulla ak sama faayda man du ma neenal doomu aadama ah, ci lépp li ma am wala ci fépp fu nga yaakaare man tamit mun naa dem lijjantel la dara ma ñëw teg ko sa loxo loolu nag moo tax man soo ëllëg soo ñëwee man tamit dina ma dina ma yombal ci li ma ci li may doxee kon donc su élection dina ko yomb ci li muy doxee ndaxte danga doon dox démb daal tey doog a ñëw euh, kon donc déggandoon nañ ko nee na dox démb tey doog a ñëw lu mu soxla dinañ ko fi fekk si nga xamante ni moo di këram euh, ngir waxtaan ak moom ki nga xamante ni moom la fi président bi teg nag moom dafa dafa ñëw waxtaan si ak yow wala moom dafa la xaar ba nga fekk si ko fi ñu ko war a fekk si wala nu mu fi demee noonu te am na ñu bëree bëri nag ñoo xamante ni ñu ci commune bi xam nañu say xarit lañu xam nañ ni tamit ñu mag lañu ci biir commune bi Eh, est-ce que ñooñu ñoom ñoo def euh, diggante boobu walla. waaw dëgg yàlla euh, loolu tamit dama la ci sant euh, di la gërëm suma kilifa ndax tey ji kilifa Samba ndong suma kilifa la muy Ama ndong ndax ñooñu dama leen di jóg cër lu tax ma leen di jóg jóg cër suma diggante ak Samba Ali Ndongo. gor ko ma gamaa jee leeraabe kooku sama góor la suma xarit la lépp lu mu bàyyi fii dama koy jóg cër ñoom la njëkk a àndal ma waxtaan ak ñoom tamit. deug yalla waxtaan bo xamne ne waxtaanu dëgg la waxtaan bo xamne bu bu sincère la waxtaan bo xamne euh, ñima andalon di def combat suñ ma gisee duñ ma xép ñom tamit duñ ma xeeb ah, ba yenen effort ak yenen effort yëpp mo dog ko ci kon lolu tamit sante yalla la ndax nit euh, lutax ñi lay tek ci commune pour so ñagas-ñagas amé nga wo sa njabot nga waxtaan ak ñom nga baña a kenn nga baña xép kenn nga baña xék kenn nga ñepp njabootu président Macky Sall lañ ndax Macky Sall loolu la sant de ñu def fayeekuñu ay millions waaye ci loolu la ñuy dox guddi ci loolu la ñuy dox bëccëg pour njabootu Macky Sall nañu ànd bokk ndey ak baay ndax ñun ñëpp tey suñu xamante président Macky Sall moom moo tax ñu xamante. macha allah ñun ñëpp suñu xamante donc président Macky Sall moo tax ñu xamante euh, wax dëgg yàlla tey nga ciy dox tamit lu rafet a rafet a rafet euh, xawaa ñu gis ne ne. xawaas yi mu ngi ci quartier bi nee na Fatmata Sall ñii wa indiloon na ko ay machine euh, ci ba muy door machine yooyu fu ñu mujjee machine yooyu mu ngi fii machine yooyu mu ngi fii financement bi tamit mu ngi ci jigéen ñi euh, man ci li ma la waxoon xam nga konko ñun nekkugu ñoon fii maire euh, ñun ñun ñoom moom part pouvoir waaye nekkuguñu maire Cheikh Dia moo nekk maire fu ma wax nañ ñu may rek place day bañ moo tax yàlla xëy na dina ñëw xam nga li ñuy wax yàlla dina ñëw mbaa yónnee comme moom yàlla dina ñu yónnee jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm li ñu doon wax ay ati at dem na ba ay ñaari weer ñetti weer moo ci des comme moom yàlla ñu yàlla may ñi am ndam ñun tamit lépp lu ñu mbébatoon ci commune bi ak lépp li ñu doon def ci commune bi yàlla def ko ñu affaire bi jëm kanam. <laughs> macha allah na lépp li ñu def ci commune bi yàlla def affaire bi kon donc yéen place boo xamante ne nii foofu ngeen war a mën a toog former fa nit ñi foofu ngeen amul seen maire joxu leen ko. amuñu xam nga sama kër gi léeg fii la nit ñi di dànkaloo amuñu ndax soo gisee PDS am nañu fii ñaari chaise yoo xam ne pour femme fu ñuy nekk léegi am na benn mu ngi tabax beneen pour jigéenam waxul jigéenu commune yi de te moom mooy maire Cheikh Dieng mooy maire tabax na benn faamam yi ñoo ci nekk faamam de laa wax du faama commune Djiddah Thiaroye Kaw de am na beneen bu muy tabax yàlla na bañ a egg yàlla na ko APR eggali man loolu lay laay ñaan yàlla APR yàlla nañ ko eggali Benno Bokk Yaakaar yàlla nañu eggali lu muy tabax noonu mu bañ a egg waa Benno Bokk Yaakaar eggali ko man loolu laay ñaan yàlla ndax nag jigéen ñi bëgg nañu gis seen bopp ci ci commune bi bëgg nañu gis seen bopp ci nguuru Macky Sall ndax nag dañ koo liggéeyal Macky Sall ñu war a fayeeku nag dañ koo liggéey war a fayeeku kon ko ñuy jiitu defuñu lu leen war ñun xale yi ñu def lu ñu war waaye nag ànd ak gëm sa bopp nit ki lépp looy def na nga gëm sa bopp nga gëm kenn joxu la dara kenn jógu la dépasse yàlla moo lay jox gémmiñ bu yàlla xal rek dina ci def dara ci def dara <laughs> donc gémmiñ bi yàlla xaar dina ci def dara loolu am na xawaa euh, si macha allah wax dëgg yàlla kàddu yi <laughs> neex naa dégg te tamit dafa reetaanlu nga ne euh, li mu tabax nii yàlla na ko euh, yàlla na ngeen ko yeggali yéen ci ci naka yéen da ngeen koy dàq wala nu mu fay demee noonu dañ koy dàq mairie bi suñu abalee mairie bi fu mu nekk nii du yeggali fii dara lépp lu mu kër yi mu sàccoon mm. tabax ko di ko maye yii di neexalee nit ñi pour ñu dëkk ci loolu yëpp dañ koy nangu. et moom pourtant dégg naa ni mu ngi defa ay làmp ay euh, kii yoo xam jardin yoo xamante ne nit ñi dañ ciy toog ak yooyu yooyu yëpp li soxali gox la yaakaar na mais ñun bëgguñu xale yi toog dañoo bëgg xale yi liggéey ndax moom dafa yóbbu xale yàlla à te ñun dañoo bugg suñu ay doom liggéey euh, moom yéex na koo def ndax Macky Sall defar na tali yi defar na lampe yi defar na tali karo yi léegi fu la neex jaar yow soo jógee sa doo dox kenn du dox foo bëgg a dem. oto ngay dugg tata ngay dugg ba wàcc ci buntu kër gi comme Macky Sall defar na lépp moom yéex naa jóg de moom nee na jigéenam na taloon na tal jigéenam kon moom suñ ko dàkkee rek nañu jox suñu caabi maison bii bi jigéenam yi nekk na ko joxe ak bi muy tabax yal nako baña egali a eggali benn egali ko yaakaar ko man ci lool lay wax. amin neena yalla yal yalla nako baña egali ndax benn egali ko xamna ne xawa dañuy ñew rek euh, ci suñu mujjenteli waxtaan ndax te xamna ne liñu amone ci waxtu daanaka presque mu ngi jeex euh, lan nga lan la xawa di denku jigen ni lan la xawa di denku wa commune ak tamit lan la xawa di taggo ñi nga ni ñom ñoy ñi sétane ci seetaan ci nat bi. waaw sante yalla rek ah, jigen ni lan la len di len rek la len di wax. nañu gëm seen bopp nit ki foo mun mënta nekk dangay gëm sa bopp gis sa lu la yàlla cëral foo tëddee sa kaw la sax yàlla dina la ko jox nit ki moo tax foo mun mënta nekk rek na nga gëm sa bopp ndax ah, soo gëmul sa bopp am na li ngay def nit ñi dañuy xam ne yow ah, dañ lay ree sax dañuy wax yow yow ci affaire u ngay dem comme boobu nit na nga gëm sa bopp nga gëm sa dignité nit na nga gëm sa bopp nga xam ne lu am yàlla la yàlla mooy maye yàlla mooy xa comme nañu gëm suñu bopp ñi ñi gëm suñu bopp takku liggéey Cheikh Dieng mii ñu jëlee ko fi loolu daal mooy suñu avantage ñu jëlee fi Cheikh Dieng ku ñuy jox mairie bi nag xool jigéen yi jàppale jigéen yi jigéen yi taxaw bëgg a liggéey seen population ñu bàyyi leen xel ñoom tamit ndax nag commune bi yaakaar naa fii ku samp fi kër rek juddoo fi yaroo fi ci ci nga bokk kon boom nañu jàppale jigéen ñi ñu bàyyi xel population xam nga ñu bëri da leen di fal maire soo leen falee dootoo leen gis wala soo leen woowee téléphone sax duñ la jël kombom lu waaye def nag ci yoor rek lay koppuwaat comme képp ku ñu fal na nga bàyyi xel population bi nga bàyyi xel jigéen ñi te nit ki na nga gore wéer gore wettali koo gore jigéen ñi nañu gëm seen bopp nañu gëm seen bopp Harouna Dia jaanak ñu ngi koy nuyu di ko sant Harouna Moussa Dia waaw waaw kooku sax waroon na nañoo ñëw ci moom ndaxte dégg naa ni am na diggante bu ratax boo xamante ni nii am na ko fii ak yéen ci Djida Thiaroye Kao. Harouna Moussa Dia euh, vraiment soo xoolee élection yi passé ni moo ci jàpp jàppale président Macky la njiit noon lay def kuy defar noonu lay def. dafa ñëw fii jàppale Djida Thiaroye Kao te yaakaar naa bu muy jàppale Djida Thiaroye Kao métti woon na loolu yoo xam nga fekk nga lépp waaye nag. mu jàpp ci nag muy Harouna Moussa Dia ah, nit ku baax tamit bëgg a jidda caaran kaw bàyyi jidda caaran kaw xel moo tax xale yi jidda caaran kaw bàyyi leen xel si jidda caaran kaw jidda caaran kaw bëri dañ leen nawloo kon moom nañu fonk suñu commune ñi xam ne suñu commune ñëpp dañuy bëgg sax dëkk ci commune jidda caaran kaw kon moom soo amee commune bu mel ne jidda caaran kaw nga juddoo fi yaroo fi na nga naw sa bopp nga naw sa population nga xam yow yaay kan gis nga nit ki fu lay fayda du ndey ak bàyyi ñoo la koy jox loolu yaa koy sa bopp kon moom nit foo mënta nekk na nga gëm sa bopp ko yakar yakaral yalla yalla rek moy maye. ndeysaan ko yakar yakaral yalla yalla kess mom moy maye deug la xawa donc li nga xamni lol ngay ñaan ak li nga xamni moy sa cadeau bu mujj ci lañu ñu donc nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ci internet bi. ma ngi leen di sante yeen ñi tay ñew tok fi vraiment euh, yow nga nekk sama rak nek nit ku baax ñi and ci politique bi dara ñaawu ci tamit nga nek nit ku deggu nga nek nit ku sincère nga ndax sama Xadika nga xamne suma rak la suma dom ji mooy euh ah, nga xamne koku suma rak la ah, ñom jor ka ñom Kumba Diop vraiment suma rak bop yooyu nga xamne dañu yaru jox ma cër nak dañ ma jox cër ci commune bi ñom Mayram Diallo ñom Sala cham ñepp tamit tay jigeen ño xamne dañ ma may cër comme mom liñ ma maye cër tamit yal na leen may cër ñom tamit euh ah, malay nuyu yo tamit di la sant vraiment ak ci sen yaru ak tay Euh, vraiment euh, li ngeen di def nii yàlla jëmale ko kanam yàlla ngeen ñëwaat fii fekk ngeen yore ay télé télé télé te dina yàlla dina ko def te yàlla lu baax lay def yàlla defal ñu jàmm soo leen di ñëwaat fii na fekk ñu jël mairie bi nag loolu rek laa bëgg ndax moom su jaree raak dinaa raak su jaree xeex dinaa xeex waaw ba seex jiyee joxaat suñu caabi loolu daal laay tëjee di nuyu ñëpp nag di nuyu waa di Caaroy Kaw yëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal honorable ci la saar sama xarit moom tamit suma mag maa koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ci barke salaatul faati di leen remercier bu baax dëgg yàlla kontaan naa ci yéen merci waaw euh, xawaa donc ñun tamit kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax ndaxte wax dëgg yàlla seet si ñi bu dalal la yombul euh, ñu bég ci yow bu baax ci dalal gi ñu dalal accueillir bi nga ñu accueillir nangu toog tamit aussi waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne nii ci loolu ngay dox muy ci développement bi nga nekk muy ci politique bi nga nekk nëbboo ñu ci dara wax nga ñu ci lépp tamit aussi macha allah ñu koy rafet lu baax a baax a baax waaw ba tey rek euh, ñuy jaajëfal suñu mbokku internet yi di leen wax rek li moo nekkoon seen émission jigéen ak mbiram lépp lu muy yëngu rek incha allah dinañ lu fekk si ba fi nga xamante ne nii foofu nga nekk wala foofu ngay euh, tuuree sa ñaq incha allah ñu tàllal la suñu micro daal di waxtaan ak yow ci li nga xamante ne nii ci loolu ngay dox ci yow naka nga nekkee fi nga xamante ne nii moo di àdduna ndaxte euh, doomu aadama bu nekk am na noo xamante ne noonu lay dundee ci àdduna bi euh, ku ci nekk nag bàyyiwuñu xaaj ak seen muy ki nga xamante ne nii tey mu ngi toog fële suñu yaay yi di laxas gerte muy koo xamante ne nii tey mu ngi toog tamit fële di takk ay ndoxam xeebuñu kenn ku ci nekk dinañu ñëw tàllal la sa micro euh, suñu micro jox la ko bu ko defee nga daal di ñuy wax yow ci li ngay dox lan la euh, fi nga xamante ne nii moom moo di Safina TV macha allah euh, chaque samedi incha allahu rabbi comme ni ma ko waxee woon rek sama njëlbeen wax ngeen abonné ci Safina TV daal di bës notification bi bu ko defee suñu vidéo bu ñëw di ci ci jot incha allah ànd ci ak sista Penda eh, ak suñu caméraman bu ñaawul bi nga xamante ni moo di saa Samba si saawaande mu saawaani gàcce ni mu koy waxee à chaque fois ci gënaangal ci a laa koy wax ci lan lay eh, euh, ci ñëpp ci ki nga xamante ni moom moo ma defar rob bu bu jekk bi ah, nice bi macha allah waaw kay jël leen sama rob ma def sama robe bu baax nii yeggale ko ba ci suuf macha allah euh, kooku di am may sa ci am nekk fi nga xamante ni moom moo di marché bu bees ma ne ko damay def sama premier numéro émission Safina mu ne man maa lay sañse euh, donc sañse bee ngi nii fa fakkaal képp ku ci bëgg rek mun ngaa contacter pendita ci 77 525 89 35 bu ko defee incha allah dinaa la boole ak moom macha allah donc ñu joxe dig daje rek ba samedi prochain incha allahu rabbi ci beneen waxtaan ak beneen jigéen incha allah